mu dëppoog ziar bii nag ziar bi nag dara warulu ko lu dul jëmmoonte ziarante baalonte àq ak sant ak ngërëm ziarante bi nag war na ci diggante jullit bu ne ak jullit ba bu ñu julee farata ba noppi sax soppalan sax joxante loxo. rawatina nag. ñu def lii nga xam ne. aj màkka. di tabaski gii. dafa bokk ci ay farata. kon jaalu na ci nag. ñu dindi xaq yi ci dox. baalonte waat xaq. rafetalaat ànd yi. rafetal pas-pas yi. rafetal pas-pas yi. delloo diggante yi. delloo diggante yi. te soobuwaat suñu liggéey. moo dëppoog bis bii. moo dëppoog bis bii. bis bi nag. di bisub ziar. di bi nag. ziar bi nag. nii ko kii suñu moom maam waxee léegi rek la. ziarit. ziarit. dafa bokk ci kanu yoon wi. dafa bokk ci kanu yoon wi. borom téere yi tasawuf yëpp. borom téere nangu nañ ne. nangu taalibe bi. taalibe bi. saa su nekk war na ko. na ko. muy doxal ab ziaram. muy doxal ab ko yaakaar. lolu bari na lu muy yokk te danay dindi te day defar ndax doomu adama dana dem ba yag ndax doomu aadama dana dem ba yàgg bari tak tak bari yit lu nek ci mom waye bu deme fi yàlla def ak ruum ndax doomu adama bu nek nak ginaaw bu lépp jàllee sa gru ci bopam amna na fu ko sunu borom def te yowmal xiyaamit kooka rek la la koy laaj ba waral na it yow ma nad'u kulla unaasin bi imaamihim bu boobaa sëñ bi du la laaj loo may toppee yow it doo laaj ana sëñ bi kulluhum aatihi yawmal xiyaamati fardan buñ ca tolloo it woote bi benn benn la ñu koy wuy si waaye kenn ku nekk deesu la atte te imaam ja te yaakaar ji nekku fa. yaakaar jooju nag. yaakaar nag. moom boo ganee àddina. boo ganee àddina. ni ashadu an laa ilaaha illallah. ni ashadu an laa ilaaha illallah. ashadu anna muhammadan. abduhu wa rasuluhu. nangu ne yàlla moom. nangu ne yàlla moom. amul benn buur. amul benn buur. bu ñuy kem kemal ak moom. bu ñuy kem kemal ak moom. lu dul moom mooy lu moom rek mooy buur. nangu it ne. nangu it ne. jaamu yàlla yi li ñuy bari. jaamu Muhammad. mooy jaamu yàlla bu wér bi. loolu ku ko nangu ku nekk nag. loolu ku ko nangu ku nekk. ba taxaw sa jullit nag taxaw. ba taxaw sa jullit nag taxaw. yàlla sunu borom dalaa digalaat. yàlla sunu borom dalaa digalaat. wabtaxu ilayhi wasila. wabtaxu ilayhi wasilat. wa jaahidu fi sabilihi. ne leen na ngeen dem wuti sëriñ nag. wuti sëriñ nag. ji ngeen jébbalu ji wajahidu fi sabilillah wajahidu fi sabilillah saw ñak saw ñak ba sa wërseuk ba sa wërseuk nga koy jël diko jox serigne bi nga koy jël diko jox serigne bi serigne bi diko def fat neex yalla serigne bi diko def fat neex yalla la halakum tuflihuna la halakum tuflihuna man yalla mo bi bunti aljana man yalla nak mo bi bunti aljana yeen ñep ngeen defé li nak dara dindu ko kuy contre tarixa kuy contre tarixa kuy contre mbirum serigne kuy contre mbirum serigne da fekk alcorane jitu na ci ba nopi da fekk alcorane jitu na ci ba nopi yàlla bindu loolu. digal nu loolu digal nu loolu. loolu nag ñun bu ñu ko dee def. loolu nag ñun bu ñu ko dee def. li ñu war a sant yàlla. li ñu war a sante yàlla. cant ga nag mate ko sëkk. cant ga mate ko sëkk. mooy sunu borom danoo sàkkalub sëriñ. mooy sunu borom danoo sàkkalub sëriñ. muy sëñ Tuubaa mii muy sëñ Tuubaa mii. te moom ci boppam. mu mat sëkk wasila. mu mat sëkk wasila. tax yàlla di wut wasila li tax yàlla di wut wasila di ko di ko digal jullit yi ko digal jullit yi ba digal ko rasulillah ba digal ko rasulullah mu jokk ci maamam ibrahima mu jokk ci maamam ibrahima mu waral bis bi ba mu waral bis bii ñuy màggal muy bisub bisub tey bii di bisub tabaski jii di bisub tabaski sunu maam ibrahima moom la daan ñaan sax barkeem ci yonente bi sax ci barkeem la daan ñaan ndax salaatu ibrahima ndax salaatu ibrahima firndeel na ko insaanul kaamil. al insaanul kaamil. yombut yombut. kenn rek ko mate. kenn rek ko mate. muy Seydina Muhammad. muy Seydina Muhammad. ndax sëñ Tuubaa bind na ni. wa huwa akmalul wara. xalxan wa xulxan. ci bind. ci bind. Seydina Muhammad rek a ci Seydina Muhammad rek moo mat. ci jikko ci jikko. ju rafet ju tedd. ci rafet ju tedd. rasulullaay rek a mat. a mat. waaye ci sang nag. waaye ci sang. ci ci sëriñ. ci sëriñ. ak lañ ci wax lépp. ak lañ ci wax lépp. nu ñu am nag noonu sëñ Tuubaa rek moo ko matee weeru koor day baax na lool juróom farata yi baax na lool julli juróom farata yi baax na lool aj makk gi ñuy def baax na lool di sàkk sarax foo tollu baax na di jàng alxuraan foo toll baax na. di jàng alxuraan foo toll baax na. dëkke tuub baax na. dëkke tuub baax na. di laabire saw ñaq. di laabire saw ñaq baax na. jël sa wërsëg di ko joxe. jël sa di ko joxe. baax na baax na. waaye loolu lépp. waaye loolu lépp. laxasu ci sëñ Tuubaa da koo gën a wér. laxasu ci sëñ Tuubaa da a wér. moom mi nga xam ne. moo xam yàlla na mu mel. moo xam yàlla na mu moo xam xaddisu nu ba ko yonent bi bëggee. moo xam wuy na ko yonent bi bëggee. loola moom mu ñëw lola, peeg loola ba mu jëkk tek. loola ba mu jëkk taxaw taxaw wëlbatiku waat nag wëlbatiku waat nag woote ne woote ne képp koo xam ne bëgg nga ndimbalal yalla. képp koo xam ne bëgg nga ndimbalal yàlla ñëwal wuy sima man xaadim ñëwal wuy sima man xaadim rasul kooku nag kooku nag ku yàlla boole kooka ku yàlla boole kooka li la war nag lila la war nag mooy sa ñaq war ta fer mooy sa ñaq war ta fer saa su nekk saa su nekk sab liggéey sab liggéey war ngay sàkk war ngay sàkk sa liggéey ci sa liggéey di fa dugal di fa dugal góorgóorlu di góorgóorlu di jëfee ay ndigalam di jëfee ay ndigalam ndax dañoo am loo xam ne ndax dañoo am loo xam ne àddina ba mu daj àddina ba mu daj kenn amu ko kenn amu ko ñun rek ko rek ñoo ko am màkk gii de màkk gii de mooy sang bu tedd boobu nga xam ne mooy sang bu ne àddina sépp ko bokk àddina sépp ko bokk muy moom rasulullah muy moom ñoom ñu téye ko ni mu waree ñoom ñu téye ko ni mu waree waaye nun nag waaye nun nag yàlla nu xéewaleel sëriñ Touba yàlla moo nu xéewaleel sëriñ Touba ñun sëriñ Touba rek la am te am gi Serigne Touba it te am gi Serigne Touba it tegu na ko ci ñax tegu na ko ñax teguñu ko ci wërsëg teguñu ko ci wërsëg lu dul moom Serigne Touba lu dul moom Serigne Touba moo nu dimbali moo nu dimbali ndax ñun ñii du kenn ci ñun koo xam ne tey jii ndax ñun ñii du kenn ci ñun koo xam ne tey jii sa pas-pas sa pas-pas mën na laa dimbali ba sësale ci Serigne Touba ci dara mën na laa dimbali ba sësale ci Serigne Touba ci dara lu dul moom ci boppam lu dul moom ci boppam rek moo nu dimbalil boppam kon nag dimbal loolu kon nag dimbal loolu war nañu dox ba yàgg war nañu dox ba yàgg di ko fàttaliku di ko saytuwaat di ko saytuwaat ko ci sant nag di ko ci sant nag ci xiir gi mu ñu xiir ci boppam ci xiir gi mu ñu xiir ci boppam ak jublu gi ñu ko jublu ak jublu gi ñu ko jublu te jublu gi di dëgg te jublu gi di dëgg ndax doomu aadama nag ndax doomu aadama nag li muy bari ceytaane yëpp li muy bari ceytaane yëpp jëmeewu ko sëñ Tuubaa jëmeewu ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ku ko jublu sëñ Tuubaa ku ko jublu jublu day dëgg jublu ga day dëgg ndax moom ci boppam day ndax moom ci boppam day seytaane la ne deqit seytaane la ne deqit diggam moom diggam ak moom kon ku nekk ci biiram kon ku nekk ci biiram boo fa ñëwoon ak sa animation seytaane sax seytaane ci boppam sax seytaane ci boppam dina mujj soppaliku ak pas-pas dina mujj soppaliku pas-pas akub dëgg akub dëggu kon nag nañ doolee góorgóorlu ci a baax ci googu wàll jataay bi li ko waral it li moom moo munu am. moom moo munu am. te muy lenn képp. te muy lenn képp. moo ko waral rek. moo ko waral rek. ndax boobaa tey yéen ñi. ndax boobaa ak tey yéen ñi. sama gisee ak sama gisee ak yéen. yombee wut noona. yombee wut waaye ku ci dégg sama kàddu. waaye ku ci dégg sama kàddu. ku ci gis sama ndaw. ku ci gis sama ndaw. ku dégg samay digle. ku ci dégg samay digle. tam jëm ci seen bi. tam jë tam jëm ci sëñ bi. def nga ca pas-pas. def nga ca pas bas te tegoo ca baat. te tegoo ca baat. te sant. tey sant. tey fàggu leneen. tey fàggu leneen. seen i taxawaay rafet lool seen i taxawaay rafet lool bari waan na seen i nawle bari waan na seen nawle ñu leen di woo ci jotaay bu ni mel ñu ngi leen di woo ci jotaay bu ni mel di leen yedd ak di leen delloo pastéef ak di leen delloo pastéef ak fekku leen ci man mii maa leen jëwriñoo seen digg ak seen digg waaye sant naa leen waaye sant naa bu wér ci seen taxawaay nag am ci yéen ñoo xam ne am ci yéen ñoo xam ne pastéef rek lañ ko defee nag pastéef rek lañ ko defee ñii ñii and nañ ko seeni rak and nañ seeni rak ñen ñi and nañ ko man bu man bu yag ñen ñi di dox ba ndëgëni ñen ñi dox ba ndëgëni ñok seeni doom ñok seeni ñoo bokkat kër gi ñoo bokkat kër gi di liggéey and di liggéey té loolu pastef rek koy té loolu pastef rek mo koy def kon nak sant na leen kon nak sant na leen lama waxon ci kaddu gogi lama waxon ci kaddu gogi bu yagul kep bu yagul kep ci yeen ñi ngeen xamni ci yeen ñi ngeen xamni li ngeen jaayanteek serigne touba li ngeen jaayanteek serigne touba tek ko ci sama loxo bi tek ko ci sama loxo bi dara delu ci ginaaw dara delu ci ginaaw di pastef bu woor di pastef bu woor di deggu di deggu di pastef rek di pastef rek kon ñoom ñooñu kon ñoom ñooñu ñoo waraloon kaddu googu ñoo waraloon kaddu googu ma ne ku ci dégg sama kaddu ma ne ku ci dégg sama kaddu loo ca bëgg loo ca bëgg na ko ca fas Nang nga ko ca fas tabaak sa bopp sëñ tabaak sa bopp sëñ touba ba ma koy waxit ba ma koy waxit ci lu mat sëkk ci lu mat sëkk ci sëriñ bi rek. ci sëriñ bi rek. laa ko teg laa ko teg. ndax man ndax man. li bokk fi man. li bokk fi man. boo ko doon jël. ci kaw bopp boo ko doon jël ci kaw bopp. karawug bopp ci karawug bopp ba ci wewu tànk ba ci wewu tànk nga dindi li ci sëñ tubaa am nga dindi li ci sëñ tubaa am ku fay xaarub cër ku fay xaarub cër doo fa fekk dara doo fa fekk dara man sama lépp seey la ci moom ndax moom kat ndax moom kat xarakaatam ay xarakaatam ak i sakkanaat ak i sakkanaatam ndax moom xër rek tax ndax moom xër rek tax waaye ñi xam luxa waaye ñi xam luxa xam nañ ne xarakaat ak sakkanaat benn la xam nañ ne xarakaat ak sakkanaat benn la waaye diggante xayaat wa waaye diggante xayaat ak mamaat ak mamaat loolu mooy doomu aadama loolu mooy doomu aadama doomu aadama kat li am doomu aadama kat li mu am bi mu fi nekkee di yëngu di dox bi mu fi nekkee di yëngu di dox moo di dund moo di dund la ca des la ca des mooy ak dee. mooy ak dee. te mooy waral la nga doon liggéey. te mooy waral la nga doon liggéey. fay ga sottee foofa fay ga sottee foofa. moom nag mu ne dajale lépp ne lépp. jébbal ko Seydina Muhammad. jébbal ko Seydina Muhammad. te boole ko ngiñ ngiñ lu wér. te boole ko ngiñ lu wér. la ko seereel waxam jooju. la ko seereel waxam jooju. kon nag ñun loolu dong nu war. kon ñun loolu dong moo war. nee na moom léppam Serigne Touba mu ngi leen di seereel. mu ngi leen di seereel ni. sama taalibe. ak taalibeem. sama pas-pas. pas-pasam. sama yaakaar. ak yaakaaram. ci Serigne Touba rek lay seey. Serigne Touba rek lay seey. kon nag sant naa leen nag. kon nag sant naa leen. ci kaw ànd bu rafet boobu ci kaw ànd bu rafet boobu yi. ma àndanteeg yéen mu àndanteeg yéen. ànd bi rafet lool ànd bi rafet lool. ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi seen doole néew na ca. ñenn ñi seen doole néew na ca. ñenn ñi seen i at dana ci néew. ñenn ñi seen i at dana ci néew. waaye boo ko nattalee. waaye boo ko nattalee. ka ëppum koom. ka ëppum koom. ak ka ëppi at. ak ëpp at mënulu leen ci dara mënulu leen ci dara ndax doomu aadama moom li mu am ndax doomu aadama moom li mu am jéem rek jéem rek wolof nee na jéem télé wolof nee na jéem télé gàcce da caa nekkul gàcce nekku ca waaye jéem ci sëñ tubaa di ko télé waaye jéem ci sëñ tubaa di ko télé du gàcce benn murit du gàcce benn murit ndax moom loo jéem ci moom ndax moom loo jéem ci moom bala ngay jug bala ngay jug mu jël ndab li teg ko mu jël ndab li ko seytaan kooku rek a neex a liggéey a neex a liggéeyal liggéeyam day liggéeyam taalibe bu dëggu taalibe bu dëggu du toog di ko wane nit jant du toog di ko wane nit jant naan ma nga nële naan ma nga nële lu dul moom ab liggéeyam lu dul moom ab liggéeyam waree bu pas ko yëgee ci sa bopp da ngay mujj yow boo ko yëgee ci sa bopp ak boo ko yëgul ko yëgul ci sa bopp nit ñi sa jëmm ju baax ji ñi sa jëmm ju baax ko ci siyaar di ko ci siyaar ndax la ngay naan ma nga nële ndax la ngay dabu naan ma nga nële sa na la sa pas may na la moom tàbbal na loolu ci sa biir moom tàbbal na loolu ci sa biir nag kon nag loolu. moom rek ko mënal. moom rek moo ko mënal. kon nag yaakaar jii. kon nag yaakaar jii. ak pas-pas bii. ak pas-pas bii. nu am jublu ci moom. nu am jublu ci moom. yàlla na ko yàlla sama borom suuxat. yàlla na ko sunu borom suuxat. rek ne rek ne. ñu sax ci loolu. ñu sax ci loolu. di sax ci di ko lëggéeyal. di sax ci di ko lëggéeyal. ci dund. ci dund. ak ci dee. ak ci dee. wasalaamualeykum. wasalaamualeykum wa rahmatullahi. taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. loolu rek ma waraloon kaddu yi